lii nu wax ak yéen nii dafa mel na sunu ci amul woon ndigal te wéetoo ko du man deme nii dafa am góor gu ñoo wax Alaaji Salif Mbeng ca soo demee tey ci Sëriñ Saaliwu Saar dana la nettali xabaar bi te am na ñu fi ne moo leen may wérd moom Sëriñ Saaliwu ku ko ci gisati na ko laaj lan la Alaaji Salif Mbeng wax Sëriñ Babacar ak lan la ko Sëriñ Babacar tontu looloon tax nu toog ci seen kanam te kun ci war a sédd sédd nanu la waaw ndax xatalunu kenn mësunu xatal kenn yàlla xam na ko